20 ans d'existence Assane Ndiaye et son label Bawol Production le 27 juillet à l'arène nationale mbokk yi déglul sargal Abdoul Aziz Ndiaye Assane Ndiaye ni 20 ans la ànd ak Abdou Aziz Ndiaye te dara ñaawul moo tax combat bi dox ci diggante Moussa Ndoye ak mbay Guy gi moom laa koy jagle juróomi grand combat beneen bi war a dox ci diggante Cheikh Super Jamono ak armée bu ngéwél 19e édition drapeau Aïda Mbodj koo koy jigéen ju mën góor la lionne de Bawol li gën a rëy ci bés boobu Aïda Mbodj moom lañ koy sargale ci bés boobu la ñuy sargal mbokk yi Badara Gadiaga le bienfaiteur de Grand Dakar original boy town Kéba mi bëgg lamb bëgg lamb jëm ca kanam Assane Ndiaye da ko fay sargal maa béy borom Bambey saltige bu mag bi Assane Ndiaye da koy sargal ci bés bi ci bés boobu mbokk yi Valdo dina fa jàkkaarloo ak Boy Dakar Farouche jàkkaarloo fa ak Kaw Cissé ak ay combat préliminaire yu yéeme sax ndaxte ans du ay jaaxaan Assane Ndiaye ni damaa waxtaan ak amateurs yi ñu ni ma entrée supporter bi def ko 3000 francs annexe loge boisson originale ETDR établissement Touba Darou Rahman Distingo Monix Bet kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu bésu de njukkal le 27 juillet ci arène nationale ñu ànd ci ak Bawol production original ay waay fii xel ah. pur jus de fruits original moo leen di wéttali si seen bépp xew-xew acca jërë jëf mbokk yi bàyyi xel seen chaîne bi di Baol TV ñi amati mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkaarlooteeg yéen mbokk ñu nuy ñëpp di siyaar ñëpp di nuy kilifa diine kilifa aada di ñaanal ñu faatu yàlla yërëm leen xaar leen aljana ñu tawat yàlla yàlla fëgg seen bopp ñu caabi féete ginnaaw yàlla leen suñu bañ jël soir suñu biir ñu leen koy defal comme leen koy defalee saa su ne nena leen fépp actualité làmb ne dinañ fa dugg waxtaane ko waaye mbokk yi tey ñu ngi fii ci yaraax nga ni ñu ñëw fekk leen Aliou ñuy entraîné di waajal seen i ku ne xam na ni Moussa Ndoye am na bés le 27 juillet incha allah fële ci arène nationale ñu ànd ko Bawol production ñu war cee féete seen 20 ans de carrière mu nekk bis boo xamante ni euh, Sénégal gépp moom na ñuy waxtaanee Sénégal gépp moom la ñuy xaar waaye bu ñu xëyee la lan demee ku ne xam na ni caatu yaraax war na jàkkaarloog nga xamante ni mooy saane Sané ginnaaw bañ déggee ay rumeur dina bëre du bëre ñu xëy tey dégg ni caatu yaraax jël na avance loolu yëpp fas yéene nañ koo waxtaanee waaye kan la ñuy jël waxtaan ceeg moom wës jàmbaar. doomu yaraax parce que yéen waxtaan ak moom ci bis yooyu ak nan lañ koy waajee Aliou duñ def rek dun nga topp ma ñu xool Weuz taxawaayam ci bis yooyu aca Aliou mbokk yi yaakaar naa ni loolu lu mënuloon ñàkk la ñu waxtaan ceeg moom waaye ñu jëm ci bis boo xamante ni bis bu am solo la ci yaraax muy le 27 juillet le 20 ans de Bawol Moussa Ndoye war koo jàkkaarloog ki nga xamante ni mooy euh, mbay guy gi Weuz toll ci wàccaay seen digganteeg mbay guy gi le 27 yaakaar naa ni ñëw na ba pare samedi waaw le 27 dañ ñëw na ba pare moom ñaan yàlla ñu yëg seeg jàmm ak salaam. ñoo ngi fi ngeen ci toll ci wàccaay. waaw ñu ngi ci wàccaay ñu ngi ci. pare ngeen. waaw pare waaw. Hmm. waaw. mais mais ni nga kii oyofalee affaire bi nii tam. waaw dafa pare rek dama xam ne liñ ci waroon wax yëpp wax nañ ko ci. Hmm. jëf moo si des jours yi jeex na waaw. macha noo gisee seen dernière face to face ñoom ñaar gis nañ mbay neexoon neexoon na ko lamb ji neexoon na signature bi tamit neexoon na noonu la ko lamb da koy neexal da nga koy jaay. comme ñun li liñ ci waroon wax ñëpp pour nit ñu comprendre bawal bawal yi tamit comprendre Ouz Jàmbaar du seen ennemi maa ngi ñoom ndax man samay supporter xaaj bi ay bawal bawal lan ci li may liggéey samay client yëpp ay bawal bawal lan kon maa ñoom mburoog soola maa ñoom nii la xëy na làmb moo tolloon foo xamante nii dafa laajoon pour ñu jaay ko mais man du ma seen ennemi mbay du sama ennemi mbay dama ko nawloo champion la garmi la ndax euh, bu doonoonu champion Moussa Ndoye du ko jël du bëri du bëri du yegsi bay ñëw du bëri Moussa Ndoye mais làmb ji day toll foo xamante nii dafa jot ñu koy jaay muy am empereur parce que soo xoolee communication yi ma si doon def moo waral waa Yarax génn lu leer nga wax communication yi ma si doon def moo waral waa Bawol fipp mhm. loolu moo doon jaay làmb ji mhm. comme jaay na làmb ji ba làmb ji jar mhm. ñoom bu ñu dof bu ñu ko bu ñu bu ñu jàpp ne wës dafa réew bu ñu jàpp ni wës daf ñoo bañ bu ñu jàpp ne wës daf ñoo nawlowul dama doon jaay làmb ji ndax ñoom ñaari kaay yëpp kenn ku nekk su toogee fee kenn ku nekk kii toog fii làmb ji du jar waa Yaraax duñ génn waa Bawol duñ génn mais pour ñu génnee nit ñi génnee supporters yi faaw ma ñëw taxaw jaay ko gars yi génn sama ginnaaw tamit ñu jaay bés bi promoteur bi gis si boppam mbër yi gis seen bopp làmb gis seen bopp ndax événement la war a doon te événement dañ koy jaay. pour ñu xamee ni man concept boobu laa doon waxee. du question waxee ni dama leen dama leen manque de respect wala yooyu noonu ñoo ñoom ñoo far. làmb la te su jeexee day jeex. mbay guy gi suñu dajee moom sama gars la man sama heure bu ñu dajee ci milieu. dañuy toog dañuy waxtaan. journée bi ñu bokkoon ñoo doon ànd ni bi ñu bi ñu mujjee bëre maa ngi moom ñoo bokkoon benn journée. da daan jënd café jox ma ma naan ma jënd café jox ko ñu naan ñu toog benn chaise di waxtaan. mais nag comme su duggee waa Yaraax. faaw ñu mettil ko neexal ko ba mu neex mooy loolu Assane Ndiaye dafa ma waroon fay sa ñaari mbër yëpp ma waroon fay. waaw waaw jaay naa loolu rek la woon quoi. am na solo mais tey ban Moussa Ndoye la ñuy xaar nag euh, le jour ji ndax yaakaar naa ne samedi ñëw na ba pare tey la mercredi. Moussa Ndoye mu pare Moussa Ndoye di ko ñaanal rek yàlla defal ko ndam. Uh-huh. ci combat bi mu jëm. yàlla defal ko ci ndam lu kawe njootam ci barke Nabi Moustapha. Mm-hmm. waaw mais saa bu yaraax waxee ne Moussa Ndoye defet interdit bu ñëwaalee loolu est-ce que bis bi du diis ci moom. non mënul ngi ci ginnaawam bés bi mënul diis non mënul diis ñoo ngi ci ginnaawam. ñu dund gunge ragal. bilaay walaay. dara ngeen pour xeex ak man. damaa bañ a waxaat ci mot bi. xam waxal rek comme jégalu naa leen booba dama pare pour nokk ko. ah <laughs> maa ngi leen di leen tooñaat yaa ma bëgg a wax loolu dama pare pour nokk ko rek. Ah. waaw parce que waxoon nga ko bu njëkk ba sekk ñëw <laughs> digaluñ la pour nga bëreeg moom dañ la ne nga duma ko loolu nga waxoon ba léegi. non non li ma wax. loo da nga ne woon digaluñ la nga bëreeg moom dañ la ah. digal nga duma ko. non non waxuma duma de. loo waxoon la laa waxoon. waaw ah, waxaat ko. <laughs> comme jégalu naa ba pare daal ah. buñ si jaaraat. comme làmb ji ñëw na ba pare moom. Euh, lan doon tàngal jeex na quoi. Ah, tàngal bi jeex na. jëf rek a des jëf a des neexal bi jeex na lépp jeex na mm-hmm. respect bi mooy doxaat quoi. Mm-hmm. waaw yaraax moom yaakaar naa ñu ngi waaj côté mobilisation. non man damay ragal gars yi tam ñu dëmm sax. Hmm? damay ragal gars yi tam ñu dëmm. ci bis bi oui. ragal gaa yi tam ñu dëmm. am mais ñu déggaat beneen rumeur sa doomu ndey caatu yaraax ñëpp doon wax le 28 dina bëre du bëre tey ñu xëy dégg ay rumeur ni caatu yaraax jëli na avance bi contre Doudou Sane. ay rumeur nga wax. dégg nañ ko ci internet bi comme ni ñu dégg. ay rumeur la rek. dégg nañ Père Pala Diop damay tudd turam génn wax ni caatu yaraax woo na manager am euh, Ndoye. ay rumeur la CNG mu def ko main libre ñëpp di dégg mu ne ko maa ngi yebal nit mu jël si avance bi. man de caatu waxuma dara wax dëgg yàlla. yaakaar naa su ko doon def dina ma wax. waxu la ci dara. non non. non non. coow li bari na ci de bañ ko yëg léegi. ah man de yëg seegul ci man peut-être mu doon rumeur ay rumeur rek. Mm-hmm. Weuz Diambar jàpp ne ba léegi caat du bëre la vingt. waaw li ma de laa jàppagum. du bëre la vingt ah su doon bëre di ko gis fii entraînement gisoo fi caat ñëwul entraînement de wala dara kuy bëre kay di nga entraîné wala nga préparé. Mm. waaw caat daa liggéey. Ah, mais bu fekkee da ngeen dox ci xelu nit ñi wala ngeen. yow ñëw nga fii da nga gis caat. non mën na nekk ci yeneen. non non dafa dem liggéeyi. dafa liggéey li caat mu ngi ci liggéeyam. kon le 28 ba léegi wës dafa jàpp ni caat du bëre. waaw man de loolu laa jàpp moom. Ah. waaw. kontaan nañ ci yow. waaw kontaan ci yow am na solo. Eh. Aïssa jaa ngeen jëf mbokk yi loolu la indiloon tey ñu nag wës jàmbaar waxtaan bi am na solo dégg ngeen li nga xamante ni wax na ko pour le 27 dégg ngeen li nga xamante ni wax na ko ci làmb ji nga xamante ni ci leen jëm le 28 diggante Doudou saane ak nga xamante ni mbokk yi mooy caatu yaraax di bëggawaat ñëpp di bëggawaa yaraax di bëggee képp koo xamante ne rek yaa ngi bëggee Naar Fall maa ngi lay fekk fi nga toog di la jox loxo di wax ni ñaan yi macha allah yegg si na ñu ngi koy gis di gërëm bu baax a baax sama yaay booy ak sama papa di leen wax ni macha allah ñaan yi yegg si na euh, ñu ngi koy gis di wax rek képp ku bëgg Naar rek na nga woy di abonné ci seen bu mag bi nga xamante ne mooy Bawal TV di leen jox di daja beneen yoon ak beneen champion jaajëf.